Euh, de la république mooy Ousmane Sonko euh, léegi nag comme ni ma leen ko waxee ndar xëyut soti te ndakaaru xëyut nekk taax te suñu borom subhaanahu wa taala foofu rek laa koy jël sax mu yomb mooy kun fayakun danaan amal mu am nekkal mu nekk bu muy defar àdduna bii ñu nekk tey te pourtant mooy kun fayakun mënoon na ko amal ci benn fan wala mu amal ko ci seconde mais lépp yàlla de ko def ak processus ndeysaan yàlla musul def dara nii rek nekk lépp processus donc processus ci lépp même buy taw da ngay gis nu mu koy préparé xiin gi nuage yi dajaloo bi même yow mii di juddu ci toqatal maniw bi ak ovule bi mu jaxase ko te pourtant sperme yu bëri dugg mais benn ci rëcc wala ñaar ci num ko neexee moom sabab ci bëgg-bëggam moom ñeneen ne fori fori new processus boobu transformation bi ngay nekk tokkatal maniw di nekk ci sa biiru ndey su fa ko su fa woo foofu noonu amoo fa air ngay dund ci sa airu ndey di dund ci sa lekk ndey di dund ci lu sa di dundee nga ciy dund di ci màgg di ci màgg neuf mois ngay doog a judd pourtant yàlla am na capacité def ko doo def neuf mois tey ngay kii suba mu mu judd loola mais lépp mu def ko ci processus lépp ba ci àdduna bi ñu nekk processus nu ko tabaxee sax processus ñii ne nañ six jours la ko def donc lépp processus la ba ci nu Sonko nekkee fii donc premier ministre processus suñu borom ba ci président Diomaye processus donc lépp processus la lépp ndànk-ndànk petit à petit l'oiseau fait son ndar xëyut sotti te ndakaaru xëyut nekk taax donc ñëpp xam nañ ni il faut vraiment de la patience il faut gars yi patienté wu déjà yaakaar naa ni ñëpp ñu bëgg réew mi it dañoo ñi nga xam ne dañuy parax paraxee mbir yi dañuy doog a daanu seen jël seen jël sax seddagut donc daanu gu ñu daanu te yaakaare wuñ ko ñu foog ni ñoom ci gént lañ daanoo parce que ñu ci bëri waa APR yi nekk ay nekkoon fi ay ministre ak ñu ci bari am na ñoo déggante naa ñoom mais nee nañ ba léegi ñoom dañoo jàpp ni ci rêve la. am na ñu ma ne ñoom ba léegi dañoo jàpp ni ci gént lañu nekk ba affaire du dëgg. billahi donc daanu googu noonu ñoom saddugul ci seen yaram seen yaram a ngi koy yëg yëg yëg métti ndax daanu wi daf leen a bett te ndaan daanu gu métti la daanu goo xam ni dafa mel ni guy guy daanu foo toll di dégg bii bi donc ñi fi toog tamit dañoo sax toogagut déjà le président Diomaye nee naa leen palais ba mënu fa dugg xam nga waxoon naa leen ko boobu ba léegi maa leen di wax ngeen di retaan naan leen gars yi nuñ ko dayeeg nuñ ko yàqeeg yooyu gis naa ni ngeen di retaan ak yooyu mais xanaa xamu leen ni même tey tey tey président de présidence de la république seen protocole tey bind na <laughs> bind na ko Pape Madou Ndour membre protocole de président nee na des gens de l'ancien régime disent que le président Bassirou Diomaye Faye doit quitter Ce serait pour aller où Au Est-ce que vous ne savez pas que les anciens pensionnaires, pensionnaires ont laissé cet endroit dans un état de délabrement indescriptible sama gars yi man du du ma buy yeew di wut lu neex nit de dëgër naa bopp réew koo faale wu ma daray adduna lu dul yàlla ñoruma du ay bëtamay luqi du ay fan ay folowu ma faalo adduna bi moo ma ñorut kenn amul ku ndayam jur ma war la ñëw di la wax lu la neex nii di fanaka créer wutuma dara ab dof may wax ak yéen ni ay waaju yëgul dara ci yaramam c'est-à-dire toppatoowul lenn quoi addunaam maa ngi free maa ngi maa ngi easy man maa ngi nice quoi cool suñu borom maa ngi koy maa ngi koy yëg donc man li ma leen di wax ay ay xàq bil xàq la xaq bu ma mënul wax dëgg damay noppi intéressé wu ma di fenn quoi pour neex di yi nii fenn créer ay affaire yu man dama lay wax dëgg cent ans day ñëwaat mille ans da ngay gisaat li ma la wax nee naa la gars dañoo yàq pale bi yàq yaxeet dañoo yàq pale bi yàq yaxeet Abdoulaye Wade moo njëkk a yàq palais de la bi indi fa façon sëriñ bu dul fëri seriñu dëmm ñoom ak ñoom farba farba sengoor fépp lañ suul Macky Sall def na douze ans musul fanaan pale quatre heures du matin la fa doon jóge di dem douze ans Macky Sall musul fanaan pale dee ko ko gënal musul gëmm pale saa yu pare woon ñibbi douze ans donc douze ans ñen ñoo fa newoon ñoom Omar Sow yii di wax nii ñoo fa nekkoon ñoo fa dëkkoon fa day di saw difa fa doxot yàq ko yàqet yàqet yàqet yàqet yàqet ak ñeneen ñu fa newoon di fa taxawaalu mus Macky Sall musul caaxaaree foofu moo tax Pape Mara Ndour wax leen ko membre protocole bi nee les anciens pensionnaires ont laissé cet endroit dans un état de délabrement indescriptible yéen mënu leen imaginer li xew palais luñ ko yàqee il il n'y a pas habité depuis 2017 palais bi président gëj na fa fanaan depuis 2017 depuis 2017 la fa nit ñi mee kenn ñi moo fa fanaan ku wedd nañ nañ dem yóbbu la palais ñi fi tëñëx tëñëxi nii non nay dem palais <laughs> yéen doomu jàmbur bi ngeen bëgg a rey daal les anciens du régime euh, PD APR ak yooyu yoon yéen boo leen sax ñoom jomaay dee de loolu tax ngeen ngeen ne da ngeen koy par force mu dem pale damuñu damuñu dëmm ngeen dëmm xam nañ li ngeen fa suul xam nañ li ngeen fa def day yi ngeen fa bàyyi li ngeen fa yàq xam nañ ko comme sëriñ yi dañ leen wax ne poussé lañ leen ñu dem fa pour ñoom ñu teel a dee wala seen yaram yi di néew yi wala seen tànk yi di néew yi seen yëfu yi ngeen def ñu jox leen réew na leen toppatoo leen ko jox leen réew ne avancé la ngeen dem fa di xërëm dugguñu ñoo ñoo bañ demuñu pare demuñu man bu lay yéen yéen a ñu mun yéen def seen i mystique di xaar nit ku fa dem faatu fa wala ay tànkam di néewe wala dëgg ay affaire yëfu dëmm yooyu demuñu fanaanuñu fa yéen ñi ngeen wax kenn mu war a fanaani pale seen waa ji nga xam ne douze ans mosu fa fanaan depuis 2017 euh, euh, président fanaanu fa léegi fan ngeen bugg chez lui aucun riverain ne pourrait accéder au voisinage fi jomaay dëkk foofu pour bañ a jomaay bañ a ak dëkkandoo waa dëkk waa dëkkandoom loolu moo tax mënu fa def mais jomaay fa la bëggoon dëkk këram gars yi ñoo ko fa jël ne ko non chez lui aucun riverain ne pourrait accéder au voisinage le président est entouré d'une cinquante de garde-corps visibles et invisibles ñooñu fan la ñuy loger où serait-il logé fan du samay wax Pape Mamadou Ndour moo ko wax membre protocole président bi te li maa leen ko wax boobu ba léegi kay yàq nañ ko yàqit douze ans Macky Sall fa fanaan kan la ndayam yàqu ba dem toog toog fa danga danga danga fanaan na na dem di ngeen xam ni l'Afrique a ses mystères ay dëmm ñoo fa toog ay nguur yoo xam ne ay sëriñ bu dul sëriñu dëmm indi nañ ko dugal ko ci palais yi ñuy suul rek di gas di suul liggéeyal réew mi ngay sëriñ ngay ngay liggéey nit ñun ñëpp xam Afrique on on se serre on se dañ naan la liggéeyal ngay liggéey nit yi liggéeyal réew mi ngay liggéey nit yow pour nit yi bu ñu wax pour ngay sàcc seen alal du ñu wax pour nga leen di du ñu yuuxu noonu la ñu doxee nguur yi boo leen ne liggéeyal ñi duñ liggéey de nit yi la ñuy liggéey dañuy xërëm nit yi liggéey nit yi liggéeyal ngay liggéey nit yi gaa yàq nañ yàq palais bi dañ ko yàq donc lii wa palais ñoo ko wax des gens de l'ancien régime disent le président Bassirou Diomaye Faye doit quitter l'hôtel ce serait pour aller où au mu dem pale au pale les anciens pensionnaires ont laissé cet endroit dans un état de délabrement indescriptible ils n'y ont pas habité depuis 2017 xam nga kañ laa xam ne gars a ay dëmb lañ barki alxuraan ay nit yu yu yore woon palais bi billahi wallahi wa taala comme xam naa dañoo jàpp ne man kon je suis influent ah, ñu ñëw ci ma waaye mais yéen Basirou président Basirou moom kañ la dem ci palais bi mais dafa dem dëkk fa mais lan moo tax dëkku fa <laughs> ne ma fu nekk ni ñoom ñi ne yow dañ may jéem a pressionné dóor ma ci maayin pour ma dem ne eh Diomaye eh, dafa jóge na dem ñibbi nag na dem na dem palais na bàyyi hôtel ba <laughs> sa waay ngeen ne yéen ci man ngeen di jaareel pour mu masawu président mu dem mu dem foofu quoi mu dem dëkk mu dem fanaani ji fa quoi déedéet ba day leer nañ ñi gars yi palais boobu ay miir kese la ay miir ak i néeg la même siège bu Macky bu mu doon toog bu ngeen xam Macky Sall fu muy dem siège boobu musul toog ci beneen siège xool leen siège bu Macky Sall di toog moom la toog ba bu ñu fiy jógee douze ans musul changé siège bi siège boobu nag boo ci toogee nii. abonnez-vous leen ci Buzz Media TV la chaîne des patriotes ngir di am ay actualité saa yu ne abonewu wu leen ci Buzz Media fii la seen de patriotes ngir di am ay actualité saa yu ne abonné